yaakaar naa combat daa bu Texas ak Sandrep seetaan nga ko bu baax a baax a baax a baax. seetaan naa ko bu baax a baax Babacar comme ni nga ko wax xale yi boo leen xoolee liggéey nañu. Mhm. ñoom ñaar ñëpp da ngay gis ne ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci forme. Mhm. combat bi nag man li ma ci gis gis naa xeex bi. waaw gis naa bruit yu bari na. Mhm. mais jotuma gis technique. waaw xam-xam feeñu xam-xam feeñu. ci ñoom ñaar ñëpp ci ñoom ñaar ñëpp. boo xoolee daal remise rek lay xeex. waaw daa day remise sànni rëb bu ñëw di xeex koy remise bu sànni rëb mhm. day bàyyi mu sànni mu remise mhm. mi ngi song essayé na song deux fois gis naa ko mhm. mais song yi baaxul mais le fait que mi ngi xaar waa ji mu dóor mu koy remise mais mën na na bàyyi loolu xaar waa ji bu sànnee kurpeñ mu wàcc suuf mu tibb tànkam mu tibb tànk bi moo tax mu ne technique gisuma ko bari na xeex nag mais gisuma technique. benn yoon de laa gis mu daw tib tànku sànni rek sànni rek. ko. Mhm. c'est parce que bu waa ji sànnee guus nga. bu mhm. sànnee sànnee guus rek booy song nit ki da ngay bàyyi ba mu sànni nga nga juyoog moom wàcc suuf song ko. Mhm. wala le fait que mi ngi gis nga. waaw ah, comme noonu mu jëlee jël mu defee nii. waaw mais dafa taxaw sur place. ah song bi waru ko na taxaw sur place. dafa da ngay attaqué booy songi normalement booy songi sa tànk bi jiitu. dafa war a avancer bi nga weccoon ci ginnaaw ñëw fi nga tegoon sa tànk boobu ñëw fekk si ah, foofu nga mën a jàpp waa ji ok ci nga mën a téye waa ji boo sëgee noonu boo sëgee noonu rek doo ko jàpp waa ji xar see tànkam rek sa loxo mënul joti foofu ok loolu mooy tardel songam ah, booy songa da ngay déplacé wu fi nga taxaw mhm. tànk bi jiitu bu avancé bi nga tegoon ba tegoon ci ginnaaw dafa war a ñëw taxaw fekk si bi ci kanam merci beaucoup sa loxo yóotu fekkee nga fekk fa waaja mhm. nga mën ko téye mais boo xoolee dafay sëg rek taxaw rek yootu quoi kon song da ngay mel ni ku yëg ku yëg escalier merci beaucoup encore bu bëggee song waa ji la fait que mu ngi xaar waa ji sànni mu sànni. waaw kon mën na war a xaar waa ji sànni mu song. mu song lan moo tax loolu mënuñu mënu faa am. mënu faa am sax parce que ñoom dañu favoriser xeex bi rek damay xaar mu dóor ma sànni. moo tax ma ne bari na yëngatu yëngatu mais xam-xam génnut quoi. Ah, te ci jàppante bi nii. Hmm. ñu bari dañu am problème mu sa waay jàppee nga jàpp. da ngay am problème bu bëre. bëre ah, waaw bëri na ci combat yi la ci combat yi. waaw bu dee ci arbitre bi lay ñëw atte. atte te lii nii Babacar bëre mën na fi am. fii ñu jàppante gis nga daa loxoom bii nii. waaw loxoom bi mu téye nii. waaw daa moo daa moo yor ngembu Lagos bi. moo yor ngembu Lagos bi. waaw Sanderep moo Sanderep dafa am loolu daa def ko am. waaw ku ne téye nga ngemb ku ne téye sa benn loxo ngi ci biti. Mhm. sa benn ngi ci biir biir waaw. gis nga sa loxo bi nekk ci biir nii. Mhm. soo ko bàyyee tëj ci loxo waa ji flexionné attaqué sa tànk mën nga jàpp tànk waa ji loxo comme daal loxo sandre ba fee mu ne fee mu nekk ne le mu tëdd ci bu jékki-jékkoon mel ni luy flexionné tëj ci loxo waa ji waa ji day ñëw ci suuf par force bu fekkee mu yóotu tànkam man Ousmane Diop loolu laa ko yenoo si na nga fexe wër vidéo bi noonu laa ko yenoo boo leen jàppante sa loxo bi féete ci biir. da nga koy bàyyi rek te jël sa dënn feleg sonné ci loxo mi mu bi féete ci ci biti. ci biti. bi féete ci biir loxom bi féete ci biir. boo ci tëddee poids am ak sa poids noo def day ñëw. waa ji day ñëw tànkam da lay jege nga dugal sa loxo xar ci. te ba day bàyyi nga mën a def demi mais boo koy defee ngay attaque tamit sa tànk. dañ ciy boole attaque ci loxo bi boole attaque ak sa tànk. nga xar mm. sa loxo ci diggante ñaari tànk yi. Mm-hmm. man Ousmane Diop noonu laa ko yenoo suñu galaa boobu ñaamu. bi ngeen yi en bu ñu mm-hmm. ku ne sa xam-xam jeex na combat yu bari da gis. obli arbitre kay da ngay mm-hmm. da ngay yow. Euh, arbitre day obligé ñëw àtte combat bi pour ñu combat bi dañ fay yàgg trop te démb na ci combat bi nag moom aussi parce que boobu gars yi xamuñu nan la ñu war a bëree foofu te pourtant bëri am na foofu encore ci jàppante bi noonu. Mm-hmm. mën nga jékki mel ni lu yóbbu sa bopp rek sa ko ci ëppalu waa ji dóor ko déséquilibré ko. Mm-hmm. yooyu yëpp am na ci. am da nga koy bett. da nga koy bett ci jàppante bi boo sentiree ne jàpp bi mu jàpp dem na ba loxoom yolam. Mm-hmm. da ngay xëcc sa bopp côté bi rek. gis ko ci ëppalu indi si voilà ba pare daw jéem a wóor ma merci beaucoup. ok mais daal gars yi mu ngi noonu daal. doy na waar ah. xam bëri xaw na des tuuti quoi ci gars yi des fois da ngay toog di seetaan làmb da ngay gis ne gars yi am nañu ouverture pour bëre mais duñu bëre mais duñ mën a bëree mën bëre quoi mais lan mooy y exemple su su ma la laajoon tey yow Zallo wala sa génération mhm. lan moo leen wutalee xale yi ba tax yooyu jafe-jafe ñu koy seen biir bëre loo may wax voilà Babacar da ngay xale yu bari léegi dañuy nekk ci koñ ci koñ gis ñu am doole njool xaw a am yaram ñu ne la mhm. demal dugg ci làmb ji mën ngaa nekk mbër quoi mën ngaa nekk mbër xale yi léegi dañuy favoriser doole am doole ba pare door a bëre. door a bëre da ngaa war a mën a jàng bëre ba pare doo ko utti doole. Ah, da ngaa war a jàngi bëre. ba pare doo ko utti doole. ñëw dool teg ci doole. mais boo amee doole te mënoo bëre. Mhm. pour nga jàng bëre du yomb. kon bëre moo war a jiitu doole. mooy mais mais bëre bëre la ñu wax bëre. waaw doole soo a ñëw. bëre doole. doole doole. waaw loolu la ñu wax. kon da ngay hmm. jàngi bëre ba pare doo ko ci doole. ba teg ci noonu <laughs> la demee. ay xale yu ci bari moo tax man damay d'accord ci ku mel ni euh, wës jàmbaar. wës loolu ñuy def noonu dafa baax Babacar. maanaam di dem di mbappat di dem di mbappati di jàngi bëre. Mm-hmm. xam nga bu njëkkoon ñun suñu génération dañu tombee woon nag. gars yi dañu daan organiser ay mbapatu koñ. mbapatu koñ yu amoon solo. yu amoon solo. Mhm. Euh, tali intersection nga ñëw sotti suuf ci digg bi. dugal ay fu mel ñaari tali. merci beaucoup mbapat yooyu daal du ko seetaan. waaw dañ daan dem di jàng bëre foofu. amoon ay ku mel ni lamb joola dañ daan dem di bëri ji foofu. Mhm. mais léegi loolu amatul léegi làmb séeréer yi moo am moo tax xale muus ay franc ay boo yu bari dañuy dem ay ñoom rek ñoom waaw moo tax ñu ngi bëgg a ci arène bi nag voilà ma ngi parce ay franc yooyu ay franc ay regret Serigne Ndiaye deux Serigne Ndiaye deux ngi noonu loolu moo tax ñoom jàmbaar mii ci mu ngi ci wës jàmbaar même Sako Balde mi ñëwoon fii da koy def Sako Balde Ada Fass mi da ko daan def da ko daan def fekk naa ko mbuur papatu yi ki ni Jacob Baldé. Ah. bu bu jàngee paare tuuti. Mm. mën a gis ku peñ yi. parce que combat gis naa day metti moom day ah. bàyyi dañu koy dóor rek. mais mm. ku mu ci jàpp tamit da lay daan. Mm-hmm. moo tax gars yi nañu jàng bëree. jàng entraîneur yi jàngal seen xele yu bëri. xam nga mm. tey da ngay dem des fois ci benn école gis xale yi di bëri. Mm-hmm. nga gis entraîneur bi naan acca acca acca rek. mais xale day def benn action mu war na li fi waroon na fi daan. waaw nga ne ko taxawal mu taxawal nga ne ko lii nii la ñu koy defee nee la ñu koy mm-hmm. defee. mais bu loolu amul xale bi du xam.